حمدا لربي على اللقاء مبكي جولي دي مبكي طالبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تندغلو خليفه صاحب الفائده التيجان يا شيخ محمد الماي شيخ ابراهيم ياس قادم الامه شيخ الحاج احمد بكار نيان خليفه بو تايبا نيان تندغلو الحاج عبد الكريم نيان بورتو بارلو تايبا نيان شيخ محمد الامين ابراهيم ياس بابا ديكي تيول خليفه صاحب الفائده دكار المقدم البركه شيخ عمر بلنجاي ديكي tewal Hadratul Tayba ñangeen ca Dakar serigne dara mustafa Abdou Karim Ñang di borom xam-xam kata alquran ak diine mo am mbégte di len yegal te di len wo ci takusanu alaaji Cheikh Sotu Ñang radiyallahu anhu ren mu di ñetteel amal ñi pukau. ko aljuma fukki fan ak juram ben ci wéru septembre 2023 ci kër Mbay Fall Dakar programme bi ni de tedde bu ñu xeye dañu amal jangam alquran ba midi xale bi ñi wax taqi lay Diagne kana bu mu taree ba nopi dina yegali alquranul karim 16h ñu noppalu xew lu julli tusubaar 17h gannaaw bu ñu jullee tàkkusaan ba noppi dinañu tàmbali jotaay bi amal fa wasifa xadaratul juma ak zikrullah gannaaw bu ñu jullee timis danañu woyal zikar sa programme bi am na ñaari waxtaan yu am solo bu njëkk bi ki koy def mooy alallaama oustaz Baye Thiam la muy waxtaanee mooy samratul fayda ñaareelu waxtaan wi ki koy amal mooy almuqaddamul baraka oustaz Omar Bale Ndiaye dina waxtaan ak mbooloo mi ak taalibe Abdou Karim Niang ci kàdduy ngërmandeem ci ñi jàpp ci jotaay bi ak ña fa teewoon yëpp kii tëj jotaay bi mooy xalifa bu Tayba ñangeen wala ku mu yebal pour mu teewal ko fa mu tëj jotaay bi ñaanal mbooloo mi ba déwén modérateur bi Serigne Daara Basiru Niang ñu gën koo xam ci Basiru mu yaa fi mbokk yi woote baa ngi noonu jugee ci Serigne Daara Moustapha Abdou Karim Niang mu leen yëgal te di leen woo ci tàkkusaani maam Cheikhu Sëtu Niang radiyallahu anhu ñi jàpp ko ajjuma fukki fan ak benn ci weeru septembre 2023 ñi ngi ci woo yeah.